asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di jiite ci nuyoo bi ak Cheikh Mouhamadou Mountakha alxalifatul aam bi tarixati muridiyya di ko ñaanal suñu borom mu yàgg fi loolu te ànd ak wér sàmm ko dëgëral ba mboolem naan yi mu am ci lislaam am ko ci liggéey Cheikhul Khadim suñ borom dimbali ko lépp mu àggale ko ndax ak yàggam fi kat njëriñu liggéey yëpp la amoon na taal bi Sëriñ Tuuba ndax moom amatu bëgg amatu bañ lu weesu liggéey Sëriñ Tuuba amul jenn yitte àdduna ci li ma xam ci moom léegi rek wax na ko mooy ak si jataay nee na lu dul Sëriñ Tuubaa rek soxla wu ko tey ëllëg wax ni mën naa ko wax fu ne nee na wàññiwul dara ci diggam ak boroom ci ngëmam xam na ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy moom la suñu boroom yónni ñu topp ay diggam waaye moom léppam ci Sëriñ Tuubaa la jaar ba Sëriñ Tuubaa amul soxla loolu nag ñun ñëpp foofu lañ ne foofu la ñuy jéem a nekk mm-hmm. moom nag yàlla boo dafa tawfeex dafa dafa nekk suñu biir waaye dafa àgg mm-hmm. te dafa yàgg ci moom mm-hmm. te loo gën a tax koo mën ko xam kon kilifa gu mel noonu dafa bokk ci papute fi Sëriñ Tuuba ndax papute fi Sëriñ Tuuba bokk na ci papute fam ba adduna tukki képp ku ko fi nekkal faw nga mate moom na mm-hmm. ko Cheikh Abdoulaye Mbacke leeral la woon mm-hmm. dafa waxoon ne Serigne Touba boobu xamee ne amul kenn amul ñaar mm-hmm. te li mu yor la leen te mënu ko jox kii bàyyi kii dafa jël lépp def ko ci ñoom waxane waxane bi rek mu jël ceeb ji teg ci loxo ki mag moo ne waxane bi rek kenn mënu fa àgg te jaarooti ci ku yor ceeb bi mooy ci ko fi waaye moom itam sëñ kenn ci njaboot bi soxla dara ci waxee loolu laajkatu joxul ko ak seen aaj bi bàyyi ji noonu la seen tubaab waxee mu wax ne itam jataay boobee bala caa kenn toog suñu borom daal la peese ak bindee ba nga mën leen wax nga doon faa wax mais nag bu la nattee rek peese la wóotu leen ñu doolee la ba nga ba nga war leen ñu doon faa mu ne boo ko jataayee bala faa kenn toog dara ji ñëw nga ko ndax Sëriñ Tuubaa dafa fagguwaay fagguwaay woon ci liggéey bi muy liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba àdduna tukki xutbaa ngeen génne si ci ay jamono lépp loo xam ne aw yiw la buy waaye lépp lu dul nattu itam bu wàccee dana wàcc si jum ba fees nga jël ci ba doon mu doon jaar ci biir sëriñ Saliou Mbacké Massa dégg mu ñett ni sëriñ bi nekk na ca gànnaar comme natt yooyu ko daa dal ba du fu mu toog du fu mën a jub am kenn ci taal bi dégg sëriñ bi xam xaala bu nekk mu ñëwante sëriñ bi daane sëriñ bi lii ko dal na suñ doon teggi teg ko ba nga ko waxee rek ci élection mu faatu bi ñu ko wax nettalee sëriñ bi sëriñ bi wax ne moom da dafa bari solo waaye li ma yor de natt bi lu tax nag topp mu jëf ko ci kon daal mooy jëm si kon Cheikh Mawud Moutaha dégg nañ ci kàddu moom mu leeral wax ne li bëgg ci dëkk bi ak li mu fi tere bi mu ko defee nag damaa yónni ci ki nga xam ne moom la def muy jëwriñam ci yoon bi muy Serigne Sidi Mbacke ibnu Cheikh Abdoulaye mu xamal ma ne booy na neex ni ma ko defee sama jëwriñ ci yoon bi def ko jëwriñ ci dëkk yi te lépp ci loxoom noonu laa ko jiite waat ci nit ñi ñaa ko lépp tegaat ko ci loxoom ba ma ko waxee ma wax ko sëriñ bi ba alxames sëriñ bi woo woo sëriñ Modou Lo Gabou woo sëriñ Abdoulaye Kane ak ñu ko seqal wax ni ko xalaatee ak ni ko santaane mu wax sëriñ Modou Lo ne ko yow ko liggéey bi ñor la ñoo ci bu gën ndax liñ ci doon rek nga ci doon te xam ne li ci def ci jamono sëriñ saa yu bëri yow kon nag ndigal la ni ma ko sëriñ bi joxe may yeesalaat la ndigal la ci yow nga taxaw ko di ko saytu na nga ko daan doxee kon nag sëriñ bi loolu mooy ndigal bi nga xam ne santaane la ko kon nag sëriñ bi ñu ci ñaanal ñaanal naa sax li ñu yàlla gën laa dëgëral gën laa kattanal ba nii nga xam ne tàmbali wu toog léegi mu mot ñaar ket wala mat na ko te dëkk bépp tëj nañ si ndax eh, dox wala mu jag wala mu tegu ci yoon loolaa nga fay rek lay njariñ la doo ko xam waaye bis bu fa tegu ko benn bis wala ñaari fan rek nit ñi dañuy xam li njariñ sa suñu ko waa ci dëkk kon nag ñu ngi leen ñaanal yoon ñu gisoo woon te yàlla defal la ci tawfiq sëriñ bi itam yeesalaatal ndigal yi mu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na ci yàlla kàttan nga àggale ko ba fa nga bëgg di commune bi itam ni ko sëriñ bi santaane ci la waxee Abdoul Ahad Ka ne ko na nga comme sa loxo laa ko teg na nga woo mboolem chef de village yi ak mboolem délégué de quartier yi ak ñi ñu ko war ñëpp ñu maase saytu liggéey bi xam ne ndigalu Serigne Touba la ndigalu nag képp ku bëgg a ku yàlla defal ndimbal te nga am doo fex la ci jëriñ jëriñu bi rek mooy topp ndigal te xam ne ci topp ndigal ci la jëriñ nekk ndax Iblis kat ñàkk a topp ndigal moo ko yóbbu li ko dal te la ko ko teg mooy jëfandikoom xel moo tax ndigal saa su agsee lëggan mooy fexe ba xam ne jëfi ndigal rek mooy la lay jëriñ loolu nag ku ne danga ko tàmbalee te soobu te xam ne wàccu kenn ndax Cheikh Ibrahima Faye daana wax ne liggéey Sëriñ Tuubaa war na xam ne liggéey di Sëriñ bi santaane lu suñu borom santaane la muy yeesal ko ngir bëgg ñëpp du ko def xam ne buñ ko defee itam seen bopp rek lañ koy defal ku ko bàyyi itam dalay dal sa bopp looy su ndax Sëriñ Tuubaa kat waxoon na ne woote loo nañ naa ñi wuy si wàcc naa ñoo ci des ñi wuy si wute wàcc naa des kon nañ xam ne sëriñ moom li ko war mooy wa maa alaa rasuuli illal balaa kon ñi nit ñi bu ko jëfee nañ xam ne seen bopp rek lañ koy xool te sëriñ Tuubaa mas naa ci njariñ laaj si mbari jaay na ko ndax mbooloo bu ñëw mun na ko mbàkke ñëpp ñëw nañu mun na ko waxal ne ñi ëpp ñëw nañu ndax woote dëgg ñëpp fekk seen yàlla mu ngi ñëpp soxal kon loolu nañ ko jiital te xam ne kilifa ngirum la ko war mooy santaane buñ defee jariñu buñ ko bàyyee lay dal dara ceeb ko Sëriñ Tuubaa rek boo xam ne ne képp kuy digle wala ngay tere war ngaa góorgóorlu ci fexe ba la ngay digle nga jiitu ca ndax mooy tax ña ngay jiite seen waxee dana loolu nag Sëriñ Tuubaa defal nañu ci toog ndax ki fi nekkal ñëpp xam na ne lim digle néew dem leen def waaye dañu ñëw leen ma ànd ak yéen te ci jiitu kon nag yàlla nañu jaay defal toog ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm rek njabootu maam Cheikh Fall ci njiital seen ak mboolem njaboot yëpp ak taal bi ndax buñ ko tuddee rek mel na ne tudd nañ mboolem Cheikh Sëriñ Tuubaa yi waaye tudd nañ mboolem njaboot Sëriñ Tuubaa ndax ñoom xam nañ ne bu dee ndigal rek buñ ko waxee mm-hmm. ñoom ñoo ci jiitu yëpp ndax ku ne ku yaakaar sëñ Tuubaa ku ne am nga leneen loo yaakaar wala loo yaakaar hmm. waaye ñoom seen dara génn sëñ ñoom seen yaakaar dafa tàmbali ci sëñ yow ci sëñ kon nag ñun ñëpp ñu ngi ñaan suñu loolu ci ñun moo tax ni ñu ci soñ ci digal bi ci moom di ko dana ko ànd ak hmm. ñu ko sëñ hmm. waaye nag lii digal la ñu yeesaat loo xam ne sëñ bi dañ koy sant ñëpp di ko sant taal bi waaye ñu jiitu waaye ci biir digle tere yi nag ñu fexe bañ xotti war may nit ndax loolu tam digle ak tere dafa am fu waree ndax lu ci ne lislaam dafa am na ko santaane ndax wala ni gis doxatul waaye de si tatam fii aw bii aw fii dukkaanihi ma laam aw fii yadayhi aw bidaarihi ma bal kullu za kaana xaraaman muñaa kon loolu ñu ngi ko bàyyi xel ba ngir ñu itam gouverneur de la région ñi nga xam ne ñu fi door ñëw moom itam maa ko woon ci turu sëriñ bi ginnaaw bi mu joxe maa ko woon ko mu ànd ak ak sous-préfet ak mboolem chef de service yi ay téléphone ngir ñoom ko sëriñ bi teg loxo ak ñi ñu koy àndal lépp loo xam ne gis nañ ko ci ndax xam ngeen ko Cheikh Abdoulaye tere itam da ko jaare woon ci autorité yi ci noonu ngir xam ne civil parce que misaal yi doo ko daa fàttali bari daa wax liggéey ci morom suñu. Hmm. loolu waral sëñ bi jiite leen ci ngir bëgg lépp loo xam war nañu caa taxaw ñu ñu ànd ko ñoom sëñ bi sax leen ci sant waaye rek nañ yee salaatal jàpp gi ak engagement bi. Hmm. ndax yëg nañ yëg nañ ne rek di ko sëriñ bi waxee. taalibe bi yëpp maase nañ ci jëfe ko. loolu nag seen dimbal rek la. Hmm. ndax sëñ moom bëgg leen yiw àdduna ak àllaaxira rek moo tax mu liggéey ko. jeexal ko ci benn fàttali rek ndax Cheikh Abdoul Ahad bi nga xam ne tere na tere yi ci dëkk bi dafa am ku ñëw ci moom ne ko sëriñ bi de yii nga andi ci dëkk bi ñu ñu ñu ngi wër ci biir kër yi mooy mooy mooy xaj yi mm-hmm. jaaxal na nit ñi sëriñ bi ne ko seeni morom lañuy seet mm-hmm. te moo ko ni mu yor la waaye bëggoon na seetal dëkk ba ca risaata mu wax ne suñu borom moo gën a yërëm jàng kon lépp lu mu digg wala lu tere rek loolu ñu jëlee ca bi mu jàllee ak biir nag jàllee ci kilifa yoon yi dafa ñëw ci moom ne ko sëriñ bi faaw nga waxaat ndax li nga santaane woon nit ñi ko kon faaw nga yëkkati askan si am daxar bàkki ne ko li ma digle ak li ma tere yaa loo ko digle rasulullahi digle ko sëriñ Tuubaa digle ko diine digle ko mm-hmm. ngor ngor ngor bañ ko mm-hmm. ne ko lu yàlla digle ne te nit ñi jëfal ko mm-hmm. rasulullahi di tere ko nit ñi bàyyul ko Sëriñ Tuubaa tere ko nit ñi bàyyul ko man Abdul bu ma ko tere nit ñi bàyyul ko di ma ko nëbbu dara laa ci dolli dara laa ci dolli nëbb ko doon ko sëkk ah, dama ci dolli dara loolee ñoo ko yóbbu mbir xam ne di santaane moom santaane lool ñu ngi si indi ñëpp di sant ñi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu